C'est la première fois dans l'histoire du Parlement que un président de groupe bu est école française la révolution le bu nga président Abdoulaye Wade désignait désigné président Cheikh le président du groupe indi dit, en général la révolution surtout les révolutions soft contemporaines, d'une guise euh, ampleur duñu en enjeu mais man foofu laa bëggoon a insister particulièrement Cheikh Mbacké jaarul ci école française Dara la jóge euh, président groupe parlementaire jaar vraiment ils ont été bruyants n'y a pas de problème mais c'est l'école française c'est la première fois mu am koo xam ne ci dara la jóge te question yii nga xam ne nañ ko fi que mësuñu koo soulevé te xeex yii nar am ci question yi mosut am assemblée kon defe naa ne euh, c'est important ñëpp sénégalais yëpp xam ne kon ku jóge ci daara mën naa doon président du groupe parlementaire mën naa doon président de l'Assemblée nationale mën naa doon président de la République